Ousmane Sonko Guy Marius Sagna bi ñu ne ko lettre mu tontu ko gis nga tey lettre lettre bi bu mu géejee si àjjuma ji parce que ñëpp lire nañ ko wax na ni gars yi bu ñu corrigé li nga xamante mooy manquement yam ci règlement intérieur bu assemblée nationale dina amal beneen janoo foo xamante ne dina ko fa defee mooy déclaration de politique générale bi mu mu jàppale ko mu jàppale mu jàppe ko moo ne moo nar a nekk le peuple souverain wax na ci cité na ci li nga xamante ni moo ay des professeurs d'université et autres yow jàpp ko defee foofu noonu day nekk benn manque de manque de respect vis-à-vis de institution bi nga xamante moo di assemblée nationale. waaw ah, merci xam nga dama lay laaj rek boo ma ko mayee. Mhm. biñ naan ndax Macky Sall mën na présenté waat pour troisième mandat wala mënut a présenté wu. ñu bëri fu ñu ko teg fan lañ ko tegoon. ci waxam ci esprit des lois. ci waxam ci moral. Mhm. les lois ne valent que par l' esprit parce que moo tax ñaari système de droit moo am système de droit codifié ak coutumier ñun nag bu codifié bi lañ jël. mooy nga naan article nangam ni lañ ko kee mooy li professeur doon sànq subtilité droit yi te façon droit boobu dafay bëri ay subtilité loo xam ne nii ca atam ba tey ci la ñuy nekk alors que pour man dañoo war a basé wu ci droit coutumier pour esprit bi parce que mooy li passé nan la woon léegi ñu ne faute dafa am ci assemblée nationale mais ci kaw faute boobu ki nekkoon premier ministre Amadou Ba moom noonu foofu la defee déclaration de kii am nu tëdd am donc ça cette faute là s'impose à l'usage même bu faute amee s'impose à l'usage parce que responsabilité bi dafa collective mm. ci ñi nga xamante nii dañoo ñoom la woon seen mu goon nekk seen prérogative ñu rectifier loolu parce que régime bi fi nekkoon la ñoom ñoo fi jëlee poste premier ministre pour man majorité bi leen fa toogoon assemblée ñoom ñoo waroon mettre tout en œuvre pour rectifier loolu noonu xam nga mm. mais même bu ñu ko deful ñi fa nekkoon tamit souscrire ci loolu noonu bokk ci opposition bi mais eux aussi ils sont pour man parce que boobu tey ñu ngi ci gëm l'école da ngay delluwaat ci esprit des fii lan mooy esprit des bi mooy ki ñu fal nguur gu bees bi muy président Bassirou Diomaye fay tabbu na ab élimaani jëwriñ muy premier ministre kooku noonu lañuy xaar fan la jëmee réew mi loolu mooy esprit déclaration de politique générale mhm. te il faut mu wax ñu fan la jëmee réew mi nag kon moom pour man moo moo waroon yàkkamti sax bi mu faloo rek ne yi fol bi comme ñoom gisoon nañ ko rectifier leen lii parce que dama war a def sama déclaration de politique générale. nee na pare na de si na pare na de nee na déclaration bi moom pare na ci. day xaar gars yi defar léegi bu ñu taxaw jàkkaarloo. waaw tey jox na la benn bunt moom moom wane na ne bëggul dem assemblée nee na léegi li mu jàppee peuple alors que peuple dafa am ay représentants nee na li mu jàppee peuple ñu la bëgg a jàkkaarloo comme ni ñu def rek ci assise de la justice yi nga xam ne nee nañ assise de la justice xam ne ni ay profil peu recommandable lañ ñoom ñoo ñëw ci enceinte boobu ñu naan assise de la justice. vous voyez. Mhm. xam nga dañuy waxtaan rek quoi. Mhm. moi j'ai l'impression que monsieur Ousmane Sonko est euh, il aime le contre-feu ak l'évitement stratégie de communication de crise la. Mhm. à chaque fois que mu nekk foo xam ni doo au mur dafay stratégie boobu lay adopté. et c'est pas la première fois assemblée boobu noonu ci affaire 94 milliards bi mu ko taalee waaye bu ñu ubbee commission d'enquête parlementaire ba fekkente ne sat nga leer nga nañu ci Atlas ak Mercalex. seen le lien supposément ténébreux doo ci dara mais yow da ngay yàkkamti sax ñëw taxaw ne lañ ko leeral lii nii nga dem ci moment boobu Ziguinchor andi ay contre-feu ne xaw ma waa Casamance ar seen doom un discours très sensible à l'époque qu'on avait décrié ci affaire Adji toujours parce que comme les professeurs wax subtilité loi bi foofu affaire flagrant délit ak genre boobu xaw lan mën na kii immunité parlementaire foofu la laxatu boobu tamit alors que yow laale woo ci dara mais taxawal ñu setal la nga laale wu ci dara après nga dem après wiiri wiiri jaari fan la mujj procès am na mais entre temps il a eu à orchestrer benn contre-feu boo xam ne dafa réeral nit parce que quand on est emmerdé une par une affaire on suscite plusieurs autres affaires dans l'affaire jusqu'à ce que plus personne ne fii mooy dige bor la ate bor fay dafa am loo xam ne nii ñoom ni doon wutee nguur ku xool rek xam ne lu bëri li ñuy wax mënuñ ci dara ba dara booloo jeex hmm. bu ñu ko appliquer leur gestion va dénoter d'une incompétence notoire notable notifiée notariée loolu la ñu loolu loolu la quoi man yàgg naa ko wax ne xaaruma déclaration de politique générale déclaration d' incompétence générale daa doon xaar parce que lu bëri li ñuy wax mënuñu ko mais ñëwal ci affaire yu njëkk ñaata frottement lañ def ak tergiversation ba tey génn guñu ci nga ñëwaat ci leen ci leneen léegi fii nii pour man problème amut. Mhm. dégg nga mhm. li mu wax noonu sax dafay précédent bu dangereux. parce que après waa majorité benno bi tontu nañ mhm. nee nañ ñoom tam dinañu réunir xool quoi mettre en œuvre pour mhm. que mhm. président du am possibilité di dissoudre assemblée nationale waaw mais sa waay attention de l'heure est grave mm. est-ce que kon loolu mënul postuler situation bi nga xamante ne ni bi crise amee dëgg-dëgg ay député ne ña ngay dem kër maam lamin Gueye dégg nga de yi ñu ne assemblée lañu war a voter loi après crise institutionnelle la andi de. Mhm. te moo tax nag il ne faut pas qu'on avec le feu moi je crois que mhm. pour euh, mieux coller à l'esprit des lois monsieur le premier ministre Ousmane Sonko bu fekkatee li ngeen diggoon askan bi yëpp mën ngeen ko mhm. kaay def déclaration de politique générale parce que man goma motion de censure ma jeexlee foofu uh-huh. man goma motion de censure amul sens parce que loolu mooy incongruité wu ñun suñu système euh, kii xam nga uh-huh. fii président de la ci constitution 7 mars 1963 da nga ko jox doole yëpp boo defee motion de censure jëlee fi premier ministre du moom mooy tabaat benn premier ministre loolu amul sens quoi xoolal ñaata fois lañ fi def motion ñi koy def sax xam nañ ne amul benn sens en 1998 l'écrasante majorité socialiste taxaw uh-huh. suñu bàyyi jiba ko yàlla ko yàlla yërëm boobu uh-huh. moo ko doon animé xam nga mais c'est pour euh, animer la galerie rek mais xam ne lii nii du dem bi ko waa presse di def en ah xam nañ ne du dem mais il voulait faire passer <laughs>